Abdou Khadre Sanogo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. docteur nga nekk sociologue juriste également analyste politique tey jii euh, ma lay laaj euh, naka nga gisee euh, procès bu Ousmane sonk ak Adji Sarr. waaw procès boo xam ne nii la dafa dox diggante ñu entre ñaari doomu sénégalais kenn ki di jigéen kenn ki di góor kenn ki takkalaate kenn ki ñu takkal ko ak loo ci mënti dégg nag ci li nga xam ne nii mooy doxalinu réew mu normal loolu warul poser benn problème. parce que bu fekkee ni jéem nañ ko lijjanti ci euh, waxtaan jéem nañ ko lijjanti ci rafetal loolu mënul nekk ñaari citoyen suñu jotee kenn rek moo leen mën a atte mu yoon ñoom nag dañoo dem yoon malheureusement li ci xaw ñuul ci soow mi mooy kenn ki ñu taxal dafay def politique ba pare nekkul n'importe qui ci langue politique yi dafa nekk ku presque xale yi bëgg askan wi ñu bëri bëgg ko nit ñu gis ko sax comme koo xam ne nii éventuellement am na ay chance am trop bu participer ci élection pour mu nekk futur président de la république du Sénégal loolu nag moo poussé mbir mi euh, amaana yi li muy bëri bëri yëpp nit ñi dañ ko déplacé ci cadre juridique bi indi ko ci cadre li ñuy wax ni xeexu opinion maanaam gis-gis ak xalaat bi nit ñi di am ci mbir mi ak ni ñu koy jàppee donc ci ñaari camp yëpp ku nekk nag dañ ci profito pour faire de telle sorte que mbir mi au lieu nga ciy wax rek lu tënku ci yoon ak lu yoon di doxal mais dañ koo xaw a déplacé tuuti di ko wax nag ci loo xam ni ci waxin bi ci jëfin bi nit ñi seen xel mën na demee ci benn boor ñu faral Ousmane Sonko wala ñu dem ci benn boor ñu contre Ousmane Sonko. coow loolu nag moom moo xeeñal waxtaan wi ak jëfin bi à telle ko que finalement loo xam ne ni dafa waroon nuru procès bu simple dafa mujj dem nag ba nekk procès bu complexe bu jéggi dayoo bu doyaa ba indil ñu fi ay. amaana ay moor yu dul jeex ba nit ñi fi jafe-jafe yu dul jeex ci biir réew nit ñi mënutoo ñoo génn suñ koy programmer et autres donc euh, mais loolu yëpp su weesoo nag man damay rester rek ci principe jàpp naa ni ki takkal mhm. su demee ci biir projet bi war naa indi ay firnde yu leer ci ni lii may takkal nit ki nii nii ak nii ak nii la demee ki ñu takkal aussi lépp lu mu mën a def pour setal boppam ci wàllu yoon war na koo mën a def te loolu nag man jàpp naa ni bu setee ci euh, gouvernance su parti politique du setee ci salon de massage ci kanamu tribunaux yi lay setee citoyen simple yi ñoo seetaan si ñaari parti yi plaidé ñi ñëwul beneen parti bi même suy plaidé même su fekkee ni benn lay sax pàkk la mais ñun sénégalais yàlla jox nañu xel jox ñu xalaat ba képp koo xam ne wax nga lu yenu maana ak lu ko yenuwul aussi ñun opinion bi war nañ ci mun a am suñu gis-gis Mhm. Euh, euh, docteur Abdou Khadre ñu bëri jàpp ne dossier bi nekkatul dossier viol kese euh, dossier politique la procès politique la comme Ousmane Sonko ni mu koy waxee saa su ne est-ce que yow d'accord nga si thèse boobule que c'est juste un procès politique pour éliminer un potentiel adversaire ci présidentielle 2024 waaw man li ma jàpp mooy prox ndollu la ñi nga xam ne ñoom ñooy wujj kujju wujju Ousmane Sonko ci politique bu ñu aw ñu exploité ko pour mën a naxasal yoonam ba fi mu war a egg ci politique du fa war a mën a egg te lool nag amaana ci ni ñuy jàngalee politique ak ni ñu koy defee ci temps moderne bi képp koo xam ne dafa nekk su wujju ci biir politique lépp loo mën ci ba du la dab ci say jéego yi ngay dox pour raw ko ci wàllu rawante ak joŋante di nga ko def ci nii duñ ko def ci na loolu moo tax ñuy wax politique aussi soo koy def war ngaa mën a xam ni dafa nekk poto boo xam ne nii bu tar bu buy tar xiisaate la donc nga préparé wu man dama jàpp ni aussi li ñuy wax ci tubaab il n'y a pas de fumée sans feu en vérité man li may jàppee ni euh, complot wala projet mooy ñu fekk la sa biir nekk woo la ba nga génn nga génn sa biir kër ñu jox la benn enveloppe nga laal enveloppe bi bàyyi ci say empreinte rek ñu ne la voilà yow da ngay jaay drogue parce que say empreinte mi ngi ci enveloppe bi loolu complot la wala ñu dawal oto def ci nit koo xam ni dañ koo raay ba pare sone sa biir kër nga génn ci kanamu oto bi rek gendarme yi wër la ne la kon yow yaa rey kii loolu moom voilà kulli alin ay complot la mais li ma gis mooy erreur am na ci doxalin erreur am na ci perception erreur am na aussi ci comportement waaw ah, loolu nag état bi profite aussi pour jéem a nasax adversaire politique bu mag a mag boo xam ne nii moo leen tere woon a nalaw guddi ak bëccëg waaw léegi nag ban dimension moo nekk politique ci procès bi mooy comme ki ñuy ki ñuy takkal wala ñu koy jiiñ moom dafa def politique te mu am mbooloo mu rëy mu ko topp am ñu bëri ñu ko bëgg mu am xam-xam di am dayoo bi mais évidemment loolu nag dafay déplacé wu ñuy wax lu tuuti ci dimension juridique bu procès bi mais di war a wax lu bëri ci dimension wu politique bi de ce point de vue là moom mën nañ ko considérer comme procès politique d'autant plus que euh, amul benn naataam la ne Ousmane Sonko ñu mu ko sekkal nga xam ne ni ñoom ñooy ay wujjam mhm. bu ñu sañoon seen ñaan yëpp mooy mu am jafe-jafe ci procès bi moom tamit ni muy communiquer ak ni muy waxee daf ko indi ci terrain politique boo xam ne nii ci posture bu njëkk bi mu adopté ba fii soo ko waxee danaan la noonu dañ maa complot mais nag man damaa jàpp yooyu yëpp mën na nekk parce que politique dafa am bay rek mën na nekk ay ay ay question subsidiaire waaye bis bu mbir yi commencé ci biir projet mais dinañ xam ni su boobaa ñan la ci seen loxo takk ñan la ci seen loxo takkul ci ban niveau la ci takkee kan moo def ak kan moo deful loolu nag ñun citoyen duñ ko wax politiciens yi duñ ko décider yoon moo koy décider ak bu yoon amee jafe-jafe ak bu amee rëq-rëq ak nu mu mënti mel réew moom boo ci nekkee mu neex la mu naqadi la yoon wa ñoŋ ak mu ñàkk ba ñu ñoŋ yoon rek moo mën a leeral ay mbir yu ay citoyen séq mhm. ci yoo xam ne ni dañ cee jote te amuñu ko leen àtte mhm. euh, ci tënk docteur Abdou Khadre Sanogo Ousmane Sonko bu gañee procès bi politiquement lu mu koy jural aji Sarr bu ñàkkee procès bi avenir am ci société bi naka lay demee Ousmane Sonko moom bu demee procès bi mu gañee d'ailleurs loolu moo tax ñun ñii ñëpp ñu ko doon wax ne mënoon nga dem même su fekkee ni da ngay teg jurisprudence su Karim di teg jurisprudence su Khalifa Sall mais Khalifa Sall li mu am ci élection yëpp li Sénégalais yi jàpp ni tëj buñ ko tëb injustement moo may Barthélémy Dias tey mu nekk maire moo leen may ñu am ay député yu bëri assemblée parce que nit ñi mais dafa ñu dina jàpp leen yàlla may na leen xel même buñ la condamné ca kaso muy baat bu jub ñoom dañuy jàpp ni problème bi ci am importance mooy légitimité bi mooy nan la ko askan wi jàppee moo tax ñun ñu yaakaaroon ni. mënoon na dem comme ni Karim demee Karim onkul sëqatul jàmbatul te dañ ko partisan bi dañoo jàpp ne dañ ko teg lu métti te du yoon mais def tëdd tëdd fa tëdd fa tëdd fa ba yàlla di def ni négociation di ñëwee peut-être muy génn réew mi mais déggoo kenn mu ne te pourtant États-Unis la nekkoon xaw ma France mission am nationalité française hmm. mais biñ ko woowee daa ñëw waaw man ma jàpp ni citoyen sénégalais nag suñ la woowee ak lu mu mënti demee da ngaa war a dem donc man jàpp naa ni su demoon mu arrivé comme ni mu koy waxee ni moom wax dëgg yàlla am na ay argument yu yuy montré yuy firndeel yuy fësal ni liñ koy jiñ takkewu ci dara man su boobaa jàpp naa ni élection bu yeboo coalition bi Macky Sall nekk ci Karim nekk ci Khalifa nekk ci plus sa Seck balaa quatorze heures su man su Ousmane Sonko demee élection da leen di gagné parce que dañuy gis ci histoire politique que nit bu amee ay jafe-jafe nga koy tegal ay ndëgg sërëx di ko ci bëgg a dugal ba dugal ko kaso wala mu jege ko su ci wëlbatikoo élection bu mu def askan da koy jàppale lu mujj rek li ci gën a nekk firnde mooy li xew Brésil ak Lula da Silva euh, ñi mu gañe xeex nañ ko tuumaal ko tëj ko kaso ñëpp wane ko muy lekk ci biir prison bi ak tëneem bu orange pourtant ci li ko yoon may topp na ci bi ci topp di ci topp ba génn demaat élection tey moom mooy njiitu réew ma donc loolu tamit daf may firndeel ni bis bu Ousmane Sonko gañe élection bi bu yoboo euh, élection yi dañ koy def formalité rek mais soo deful nag raccourci lay nekk maanaam yoon bu gàtt a gàtt bu ñu biral ak bu ñu gaawal pour nga gis ko ci manteau ak costume président de la république bu ne Adji Sarr la nag moom mm-hmm. que mu gañee ak mu ñàkk gañee li yàqu ci moom pour mu defar waat dina toog ay ati ati ati at parce que dundam ci li nga xam ne nii mooy biiram et non ci li muy fësal mooy li ñuy wax paraître ak être am na lu ci am différence boo ko gisee day fecc wala muy reer mais day jafandu rek di góor waaye xam naa gaañu gaañu yi mu am ci biir xelam gaañu gaañu yi mu am ci tëj bi muy tëj boppam ak su paree projet bi nan la war a dundee nu mu war a amee sëriñ nu mu war a amee doom nu mu war a lan lay wax ay doomam suñu màggee di gis turam ci internet bi ak niñ koy kawti kawtee ñu ne ci histoire Sénégal am na benn at am na xale bu jigéen bu am ñaata at moo fi indi jafe-jafe entre moom ak homme politique tel ak homme politique tel même su jëlee avion mu génn suñuy frontière même su tukkee même su nekkee ci lu neex même su amee jëkkër Euh, il va lui falloir mu am gunge bu mucc ay bu ay spécialiste comme ay psychologue comme ay thérapeute de couple euh, comme ay anthropologue ak ay sociologue du couple gunge ko pour mu defaruwaat gaañu gaañu yooyu te loolu xam naa ni non seulement du yomb waaye su waree amit ay atti atti at la koy jural donc man Adji Sarr jàpp naa ni benn honneur rek la am ñëw taxaw ci kanamu sénégalais yi pour mu firndeel ni moom li mu doon wax dëgg la wala du dëgg mais même su ci jëlee woon ndam sax en réalité elle va se rendre compte su wéetee que tole bi mu créé nii yàqal na ko dundam une bonne fois pour toutes xëy na nag mën na réussir mu créer ay moment de mbégte ay moment de mbégte mais dundam moom je ne suis pas pessimiste mais li ci des euh, mënul fàtte épisode bi te dina nekk ay ay ay ay góom yoo xam ne nii ci moom même su wéroo nit su ko xoolaatee dina ko fàttali yoo xam ne nii ay moment yu jafe la ci dundam. docteur ñu ngi lay remercier bu baax a baax may fàttali ni ah, sociologue nga analyste politique merci beaucoup. jërëjëf.